façon ca fasila fasala la fi hadi ci njubam wa ak jikkoom sallallahu alayhi fi naw ci nelawam wanti baay ak xeewoom bunt bi li muy jàngalee mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam num ak wàllu xeewoom kaane nekkoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaw laal taaratan léegi-léegi wala nittin ak ci der taaratan léegi wala mu tëdd ci kaw basan taaratan léegi-léegi wala ardi léegi-léegi mu ci kaw suuf taaratan léegi-léegi firaash gëri mën ngaa wax mokket wala sariir ci kaw lal yi nga xam taaratan léegi-léegi dégg nga wala boog wala sami sariir ci kaw moket taaratan léegi-léegi benn rimaal yi ci diggante beeñ yi maanaam lu ñu lal rek ci ci beeñ yi tëdd fa wa taaratan léegi-léegi ala kisaayin ci koddaay aswada bu ñuul sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul woon buur boo xam ne fu gën a rafet la daan tëdd wala fu gën a kawe wala fu gën moom ni ñëpp mel rek la mel wala mu mel nu kenn melut daan na tëdd ci kaw lal daan na larab der tëdd daan na lal basan tëdd daan na ñëw sax tëdd ci suuf noonu rek sallallahu daan na lal moket rek ci beñ bi noonu tëdd am am na malaan gu ñuul gum naan lalit di tëdd fu mu daal noonu dafa tëdd sallallahu alayhi wa nga ne jamono ji am na kilifa yoo xam suuf dee leen gënal ndax yaakaar nañu dafay wàcc seen daraja te yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fépp la daan tëdd rek gannaaw ba nga na ne yàlla def na ko mu dib yonentu nii la ooyee feewoon lalam sax moom nekkutoon lal bu mel nee na lii dégg nga wax na abbaat bun tamim am mi jëlee ci bàyyi taxam ne raaytu gis naa rasulallah yonentu yàlla bi sallallahu alayhi mustalqeen mu aji jaaxaan tëdd jaaxaan mooy tëdd jàkkaarloo tëddee ca gannaaw ga kanam nga jàkkaarloo asamaan fil masjid ca jàkka ja waa di an mu aji teg ixdaari jile ci benn ci ñaari tànk bi loolu oxraa ci beneen yonentu daal nee gis na ko mu tëdd jaaxaan jël benn tànk bi teg ko ci beneen tànk ba rek sallallahu alayhi wa kooku nettal nañ ko ci moom mos naa tëdd ci jàkka ja rek daal di jaaxaan jël benn tànk bi teg ci beneen tànk ba wakaana nekkoon na firaashuhu laram laram ba udu mën di der ashuhu la nekk ci biir ne lii fun mooy cëggi tàndarma ko xobi tàndarma yi daal lañ jël dugal ci biir mu tëdd ca bu doon nga ne larab pajaas la loolu ñu nekk ci àll ba xam nañ pajaas ay xobak yi lu ne lañu jël dugal ci biir wa daal di ko rab ak ay saako di ci tëdd larab yi ci Muhammad sallallahu alayhi man ngaa wax ne Zara Pajas la woon mu di der der ay der ñu jël rek dugal ci biir xobi tàndal ma daal di ko rabbu mu di ci tëdd tey nag xam nga ne lal yi gën a nooy ci lal yi moom la ñuy tëdd rek laa wax de <coughs> yàlla bu ñu yàlla waxee man qiyaamati ne azabtum tayyibaatikum fi hayaatikum dunya yéen yu neex yi ngeen waroon am aljana yëpp yóbbu ngeen ko ci dund àddina yàlla bu ñu yàlla wax loolu waaye daal bu yàggee mu ëpp moom léegi kopp xewal ki gën a néew euh, kopp xewal ci xewal yi jàppee na moom kii gën a waaye li ñu yàlla defal daal ci teraanga moom teraanga àddina kooku moom ku ne xam ne ne mat na la laa wax de yonent bi sax daaw dund loolu waaye ndollal rek ci àddina waaye yàlla moom ci benn ndollal wa kaana nekkoon na la wañeel ko misun ak koddaay misun ak ak e, e, koddaay la daan doon yéenaa mu dana nelaw ali ci moom waa maanaam malaan goo xam ne dañ ko daan laral mu di ci tëdd nga xam ne mën nga koo lem comme mbàjji rek mën nga koo lem <coughs> ñaari lem-lem mën nga koo lem lem-lem waa xam nga ñeenti lem-lem yi mooy gën a nag waaw yus ko lem bi san yetee ci ñaari lem-lem wa suniyee lem nañ ko loxoo ñeel ko yow man arbon sanayaat ñeenti lem-lem fanaaw mu tere leen an daalika ci loolu wa qaala mu ne ruddu delloo leen ko ilaa haalihi ci melokaanam alawal bu njëkk ba mooy ñaar rek fa inoo nag moom mën tere na ma salaati sama julli ga laylata guddi ga rek laa wax de sallallahu alayhi manaan googu bañ ko ko lemalee ñeenti yoon ba mu ci tëddee dafa jug rek daal di xaay gars yi loolu ne leen bu leen ko defati ñeenti lem-lem def ko ñaar tee na daal dégg julli waaw ci guddi gi rek laa wax de yonent bi lu mu solaan rek mu xaw a laal xaatiram daf ko daan ba bu dee yére la mu sol ko bu ko yéemee da ko doon si mi joxe ko waaw <coughs> bu lal bu muy tëddit waaw bu ko kiiwee mu simi ko rek de moom daal lam laan bëgg daal mooy loo xam ne nii waaw du tax mukk xolam aju ci loolu xol bu moom yàlla rek ko moom lépp loo xam ne nii bu ko jëfandikoo xolam dana caaju loolu daf ko daan génnee joxe ko rek laa wax daal di ci génn mu ne wal maqsuud la mu bëgg wax mooy àndoon ak moom naama nelaw na alal firaasi ca lal ba wa taxataa mu muroo bi lihaafi ca mbàjj ga dégg mu wàllu nisaa yi ñeel jigéenam ya maataani dikrul ma jibrilu jibril waana man fii lihaafi imraatin maa ngi ci mbàjj jigéen min kunna ci yéen xëy na Aïcha lu may Aïcha maanaam tëdd na rek daal di muuru mbàjj ba wax yu ga dikkal te yellanti koor mu nekk di jaamu yàlla te julli ba wax yu ko dikkal ko de mos naa wax jigéen ñi ne leen wax dikkal fekk maa ngi sangoo mm, ci mbàjji jigéen bu dul ndey Aysatu moom rek la mos a sangoo mbàjjam wax yu daal di ko dikkal rek laa wax sallallahu alayhi wa sallam <coughs> wa nekk na wisaadatu ngegenaayam ba tey udduban di der xasuwaala nekk ci biir lii fun mooy ci gi tàndarma nañ defaree lal ba rek noonu la ngegenaayi mel xob yi tàndarma lañ jël dugal ca jël der ba rabbu ko nag loolu moo doon gën a yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kaana nekkoon isa awa bu tappe oo ila firaash yi jëm ci lalam bali naw mi ngir nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tëddaan ci lalam ngir nelaw ñaan gi la daan wax xaala bismika maa ngi tàmbalee sa tur allahuma yow buur wala boog bismika si sa tur axya laay dund allahuma yow buur yàlla wa amutu ci laay dee ismu lu ne nag moo di moo di de ci yàlla lay nit ñi di dundee ci yàlla la ñi dee sallallahu alayhi wa sallam wa kaana nekkoon na yit ñaari tënqam ya su ma yen mu tafli fii maa ci ñaari tënq ya loolu wane na barke wal quran ba al quran amu doon barke xanaa kay dafay jàngal quran ak ñaan yàlla waaye moom lam jàng ci làmm ñu moom ci yaram ba diraay loxo ba diraay yaram ci loxo ya diraay yaram ba rek wax de waaye jàng gi mu naan saar balaa muy tëdd bu ko defee tafli ca loxo ya raay ca yaram ba kooku kay dëggal na barkeelu dëggal na it alquran <coughs> la wa kaana nekkoon na yaqaru di jàng fii maa ñaari loxo yooyu qul wala ahad mu di ixlaas ba jeex ak qul audu bi rabbil falaqi ba jeex ak qul audu bi rabbin naasi ñetti laa yi daal yonentu ñetti saar yi balaa yonentu tëdd daan na ko jàng daan na jàng ixlaas jàng falaqi jàng naasi taf li ci loxo yi ko defe nag raa yaram wi yëpp mu kanam ak gannaaw def dana def loolu ñetti yoon door a tëdd sallallahu alayhi wa sallam nettal nañ képp ku jàng kuy tëdd jàng ixlaas fukk yoon ak benn yoon wu nekk mu ànd ak bismillahi rahmaani rahim maanaam qul wallahu ahad ànd ak bismillahi rahmaani rahim su paree mu teg ci falaq teg ko defee taf li raa yaram wi kenn du ko mën a liggéey mu jàpp ko rek laa de man nga ko def nag ni ko yonentu doon defee muy ñetti yoon man ngaa jàngil ixlaas falaqi naasi raay jàngaat raay jàngaat raay ba muy ñetti yoon noonu la daan yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di def moom su ma yem soo mu raay bi maa si ñaari loxo yi mastata lam mën a raay min jasadi ci yaram wa yëpp doo day commencé bi ma si ñaari loxo yi àlaa raasi ci bopp ba woo ga wa ma aqbala ak la jàkkaarloo ak moom min gisee di ci yaram war rek laa wax Muhammad sallallahu alayhi wa ñetti saar yi nga daf daan tafli ci loxo yi raay yaram nga bopp ba lay commencé nag ak ga dégg nga lu mu ci yaram yi rek mu daal di ko raay yafaal dana def daal di salaasa maraati ñetti yoon la ko daan def sallallahu alayhi wa sallam bu kaana mu di tëdd ala ci wetam lay mel ni bu waaye dama mu tegee doo yim naa loxo ndeyjoor ba tax xa xaddi ci ron lex ba raay ma ne bu ndeyjoor yonent bu daan tëdd ndeyjoor la daan tëddee lex ba mu jël ko nag teg eh, loxom ndeyjoor mu teg ko ci kaw lex ba daal di nelaw noonu la daan tëddee waaye daawu nelaw fekk dafay taanaay dire <clears throat> nag daan tëdd taanaay ngir noppalu waaye daal bu daan nelaw moom bu tëdd jotee ba muy nelaw moom ndeyjoor lay tëdde jël loxo ndeyjoor ba teg ca lex lex ndeyjoor ba waaw lox ba mu teg ko ci loxo ba mu teg ko ci lex ba su ma yaqul mu wax ñaan gi ne allahuma yow buur yàlla xini yàlla nga ma musal azaaba ko sa mbugal yow ma tabansu bis ba da nga dekk ne baale ko sa jaam yi yàlla keroog booy dekkil sa jaam yi yàlla nga ma musal ci sa mbugal yàlla buñ ma mbugal sallallahu alayhi wa sallam noonu daan wax bu daan tëdd mosul fàtte borom moom moom wa kaana nekkoon na yaqul di wax isa awa bu tàppe oo ila firaas yi jëm ci laram yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu tëddee ci lalam daan wax ñaan gi daan wax ñaan yu bëri bokk na ci allahuma yow bur yàlla wala boog alhamdu cant lillahi ñeel yàlla alladi yàlla mi nga xam ne atamana lexal nañu wa saqaana mu nandal ñu wa kafaana mu xaar ñu waawaana mu fat ñu fa kam ñaata mim man ñi nga xam ne laa kaafiye déet aji xaar law di ko ñeen wala mu weedu caagin aji fat bëri na koo xam ne amul kenn ku ko xaar amul kenn ku ko fat ñun yàlla fat ñu xaar ñu laal ñu nandal ñu ko ñu ngi koy sant rek laa wax de yàlla yàlla boole si ñi muy fekk ak ñi muy fat waa ak ñi muy leexal ak ñi muy nandal zakarahu tudd na xadis boobu muslimun muslim loolu daan na ko wax wa zakara tudd na moom muslim ay dem ba tey àndoon na yonent bi kaana nekkoon na yaqul di wax isa waa nem tàpp wu na ila firaashi jëm ci lalam yonent bu daan tëdd ci lalam daan na ñaan gi ne allahuma yóbbur yàlla rabbi samawaati yow borom asamaani juróom-ñaar wala dëgg suufi juróom-ñaar <clears throat> wa rabbil arshi yow borom aras al azimi gaa màgg rabbana yow suñu borom rabba kulli shay'in yow borom lépp lu nekk faaliqil habbi yow mi nga xam ne yaa toj gàncax ga wan na waa tool toj ab saal ba génne garab ga ci war a génne <clears throat> saal moom garab a ci génn waaye pepp moom gàncax a ciy génn yàlla nag boo jiyee pepp ba. moo koy toj ba génne gàncax ga waaye boo jiyee ab saal moo koy toj ba daal di génne garab ga dégg nga munzili tawra munzila tawraati yow mi wàccee tawraat wal injiil ak injiil wal furqaan yaa wàcce loolu lépp maa ngi musu bika ci yow min charri kulli di charrin ci xayu bépp borom ak xay yoo xam ne ante yow aaxisun aji jàpp nga bi naasiyati ci njubam maanaam képp ko am xay boo ko xiiru sama kaw rek mënu ci man dara maa ngi lay ñaan nag mu musal ma ci xayam woowu ku la mënal dara rek yàlla ko xiir sa kaw ndax moo jàpp ci njubu ku nekk jàpp ci njubu na mooy not nga ku ne waaw mu ne anta yow alaa walu yaa njëkk ba ngay xam dara xamul woon fa lay sa nekkul xabla ka njëkk la yow yàlla séyoon dara wa anta yow yàlla laaxiru yaa aji mujj fa lay sa nekkul baax daka gannaaw ba nga xamee séyoon dara tamit de wa anta yow yàlla zaahiru yaa aji feeñ fa lay si nekkul foo ko di la faree kaw ba man laa nëbbu cheyun dara rek laa wax de <laughs> wante yàlla albaatinu yaa ji nëbbu mm, nga waaw fa lay si nekkut doona ko di la génn nag cheyun dara de sa nëbbu googu taxul dara génn la rek laa wax de mm, ma xaal ba daal daan fa yaa ajaban min baatinin fa huwa zaahiru mu ci koo xam ne moo nëbbu te mm, tu bàkke yàlla balaa moo ne yàlla nga fay yàlla nga fay ànnaas ñu àddee na bor yow yàlla yàlla nga ñu fayal suñu bor yi ndeysaan waax ni naa yàlla nga ñuy koomal meneen faqe ñu jugee ci ñàkk de yàlla nga ñu may koom ba duñ ñàkk ñàkk nag bi ci gën a bon mooy ñàkk yàlla wa kaana nekkoon a tay xasa bu yeewoo min manaami ci nelawam fi léegi ci guddi xaaral daan na wax ñaan gi moom yonentu ne laa ilaaha mu benn buur wala jaam illaa anta lu ma yàlla subhaanaka tudd na ma sab sell sa allahuma yow buur yàlla inni naka man astaghfiruka maa ngi lay jéggulu li zambi ngi sama bakkaar wasalu ko mag lay ñaan rahmataka sa yërmande bu yeewaan li daan wax ne allahuma yow bur yàlla sidni yàlla nga ma dolli alman xam-xam wala toujours yàlla bul jengal qalbi sama xol baax na hadayta nii gannaaw bu ma jubalee ndax bu neexee yàlla mu jubal la ba nga jub kocci mu la waxab li yàlla nga ma may min la dun ko fa yow rahmatan yërmande innaka naka yow yàlla anti yow alwahabu yaay mayaa kun yaay mayee lii yonent daan na ko balaa mooy bu xeewoo wa kaana nekkoon ne isan tabaxa bu xeewoo min naw mi ci nelawam xaala mu wax ñaan gi ne alhamdu cant lillaahi ñeel na yàlla alladi yàlla mi nga xam ne axyaana moo ñu dundal baadama amaatana gannaaw bu ñu rayee wéyre ci moom la jëman na suuru ak dekki yàlla mooy ki nga xam ne nii bu ñu rayee danañu dekkil waaw ci moom lañu pang buñ dajalooyee ci moom lañ jëm su may ku topp mu socc nag la daan wax bu xeewoo ci nelaw daal di soccu ku ni noonu tu bu xeewoo an daan na soccu war ba maa xara amaana mu jàng bu xeewaan alansaral ayaati fukki laa yu mujjee min axiri ali imran ci mujjëg fukki laa yu mujj ci ali imran daan na ko jàng <coughs> min qawli te mooy ci wax yàlla jum naan fi xalqi samawati wal ardi kooku ali imran la aye cent quatre-vingt-dix ila axiri Ali Imran bu mujj Ali Imran de yonentu bu yeewaan daal daan na jàng quatre-vingt-dix ci Ali Imran ba Ali Imran daal di jeex dégg mooy cent quatre-vingt-dix ba waaw laaye deux cent rek laa wax de <coughs> mooy fukki laaya laaya ji commencé na fi xalqi samaawaati wal ardi mooy cent quatre-vingt-dix ci laaya Ali Imran ba laaye deux cent yonentu daan ko jàng su yeewaan wa qaala mu daal di ne allahuma yow bur yàlla lakka ñeel na alhamdu cant ante yow yàlla nuuru samawaati yaay leeru asamaan juróom-ñaar wala dara suufi juróom-ñaar leer nag ci góor yàlla yi moo di ak xam wa fii nag yaay leeru lépp lu nekk ci asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar de wala ka ñeel na alhamdu sant yow yàlla yow qayimu samawaati yaay ki taxawee asamaan juróom-ñaar wala dara suufi juróom-ñaar lu ci taxaw rek sa kattan la taxawee boo ci génnee rek mu daal di ñàkk woon fii nag lépp lu nekk ci asamaan juróom-ñaar ak suuf ndaw tawxid gu rafet wala ka ñeel na la alhamdu cant ante yow alxaqu yaa dëgg wax du ko sa dëxal alxaqu mooy dëgg yaay dëgg li nga digal loo dëgg wala xaaw ko dajeeg yow nag xaqun dëgg la wal janatu aljana xaqun dëgg la wannaaru sawara xaqun dëgg la de wan nabiyuuna yonent ñoom ñëpp xaqun dëgg rek lañ boo leen boole rek ñu dellu ci benn xaqu wa muhammadun muhammad nag xaqun dëgg la laa wax de setti na boppam laa wax ci biir yonent yi yonent yi buñ nekkee dëgg rek ci moom lañ nekkee dëgg wa saatu bis benn ci xaqun dëgg la allah mu yóbbur yàlla aslamtu jébbal naa suma lépp laka ñeel la wa amantu gëm naa bi ka ci yow wa tawakkaltu maa ngi wakiilu alayka ci yow wa ilayka ci yow yàlla anabtu laay dellu su may dellu ci yow laa jëm wobbika te ci yow xaasamtulaay xuloo xéebéer yi may xuloo ak noonu yàlla yi di dàggasante ak ñoom cay lay waaw jubluuma ci lu may dëggal sag dëgg rek laa wax de <coughs> kon xuloo lislaam ku la ci wedd it def ko rek laa wax de yonent bi daan na xuloo ci yàlla waaw way léegi ci yow ci yow yàlla xaakamtulaay atte woo su ma wuteeg nit ba ñëw ne yàlla xatte maag diw xamal ne waaw bëgg a taxawal sa diine rek moo tax mu bëgg nga atte waa jooju moom yonentu daan na def loolu kon sallallahu alayhi wa sallam jàll nga jégal lii ñeel ma maa xaddamtu la ci bakkaar wa maa ak la ma yéexee mooy yi mu war a def te defaguma asratu ak la ma nëbbu wa maa alantu ak la ma feeñal ante sama yàlla laa ilaha amul benn bur mi war a jaamu anta lu ma yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wax ñaan gi dégg nga mooy ne lépp lu muy dundam lépp daal yàlla rek tax loolu nga ciy déggee wakaana nekkoon na yanaamu di nelaw awala layli ci ñel benn guddi gi wa yaqumu muy jug aaxiroo ci mujj guddi gi sallallahu alayhi wasallam yonentu ñel benn guddi gi la daan nelaw mujj ga nag mu jug di jaamu boromam rubbama sahira amaana mu foog awala layli ñel benn guddi gi fii guddi gi du mën a nelaw ndax nekk ci soxlaay jullit ñi rek sallallahu alayhi wasallam wakaana nekkoon na tanaamu di nelaw ay naaw ñaari bëtam ya wala yanaam waaye du nelaw mukk xalboo xolom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu daan nelaw bët yi moo daan nelaw waaye xol bu moom du nelaw ndax ma nga lab ci péeb yàlla ba nelaw ak xeewoo ci yem wa kaana nekkoon idaa naama bu nelawee lam yuqiduhu kenn du ko ñemee xeey hatta yakuuna lu mooy mu nekk foofu moom allazi mooy ki nga xam ne yastayqidu dana xeewu yonent yàlla muhammad sallallahu bu nelawaan xamul kenn ku ko xee moom mooy bu xam rek laa wax de waaye nag daan na santaane nag léegi-léegi ñu xee ko mos naa neraw digg bëccëg xam ko génn àdduna ñu jullee ko ba denc ko mu ne ba mu xeewoo wax ko mu ne lu tax xeewu leen ma woon ñu ko danga doon neraw fekk yaa ngi xoor ñu bañ laa sonal mu ne lu mel nii bu amatee di leen ma xee sallallahu alayhi wa sallam wa kaane nekkoon isa arasa bu tërtërloo maanaam bu nelawee bi léeg ci guddi ittaja day tëdd ala shiqil ayman ci wetu ndeyjoor wa ida arasa buy nelaw nag qubala qubayla subhi njëkk suba moom nasaba mu samp ziraaw xasib xasaboo mooy loxo ba wa daa mu teg raasoo bopp bara kaf yi ci tënk ya bu fekkoon dafa bu jullee fajar ba pare di xaar suba léeg-léegi mu tëdd waaye bu tëddaan daf daan yëkkati xasaba gi jël loxo jël bopp bi teg ko ci tënk ya su sukkandikoo ko noonu la daan def amma buy nelaw guddi moom dafay tëdd bu baax tëddee wetu ndeyjoor rek noonu la daan def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hakaza nii qaala la wax tirmidi tirmidi abu xaatim wuuteeg moom waaye la tirmidi wax mooy li gën a wér wa qaala wax na abu xaatim fi saxi dégg nga dégg nga ci téeréem bu wér ba ne kaana ne kon isa xarasa buy nelaw bi léegi ci guddi tawasala day ngi gànnaayoo yu muy nuwoon day nga loxo day jor ba léegi gànnaayoo isa arasa bu lo ku bay da subi njëkk suba na saba nag dégg nga saa ngi doo waaw xasa bum nga rek laa wax de mu ne wa azunu dina ma jort xaasa lii wax ma muy muy njumte wa sawaabu la nag mooy hadis bi Tirmisi loolu wér mu ne wa kaana nekkoon abu xaatim wa qaaloon abu xaatim wa taxriisu tërtërlu nag innama yakun naka dana nekk xubay suba njëkk suba te taxriis bu ko araam waxee mooy buy nelaw njëkk suba rek la wax de dégg nga wa kaana nekkoon na noom moo nelawam ahdara noom yi di nelaw yi nga xam ne moo gën a baax ci nelaw yi rek laa wax de woo maa yakunu mooy nelaw bi gën a baax mel noom ci xeetu nelaw yi wala ci baaw docteur yaqulun dañuy wax ne woo moom sulusu layli mooy ceeru guddi ba naxaare ak bëccëg te mooy samaanu saati juróom-ñetti waxtu juróom-ñetti waxtu daal mooy li gën ci di nelaw daal nelawam bi ci gën digg doomu te yonentu noonu la daan def mooy mu nelaw juróom-ñetti juróom waxtu bu mu ko ëpp bu mu ko wàññi bu manqué rek mën na koo jural feebar waaye bu ëppee nag mën na koo ak sàggan أجي من نون صلى الله عليه وسلم إن ورد الإسلام والسلام والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته